zahir xam nga ne ndaw la ni ko waxee daal di seen ci bu am bàyyi ko fi mu nekk loo xam ne ci gannaawam rek moom Cheikh Ibrahim Niass ba mu kër gi léegi def na ñeent fukki at ak ñett def na ñeent fukki at ak ñett ndax boobu ak léegi laa jublu.

بخدمة وقفنا خدمة المولانا Cheikh Kounta yàlla ba ma mayee ma gis kër gi ni ma mel man duma ci dara ñëpp li ngeen di gis ngeen di taxaw duma ci dara lépp moom ndax dama na ko sant naa la mun a ma samax naa waa bëgg nañ te topp na keroog ba ma ko ko waxee keroog laa gëj a wax ak moom ci nopp keroog laa gëj a wax ak moom ci bët keroog laa gëj a wax ak moom ci làmb ñu topp loolu yëpp futteeku indi ay gone indi lépp di liggéey kër Mawlana Cheikh Ibrahima bi damay wax rek ne benn taalibe ak fekk suñu benn taalibe ñëwul fekk si moom ci kër Mawlana waaye su fekkee ne ay taalibe Baay ñu ngi fii ngeen ne da ngeen a bëgg Baay Ñas ngeen ne ci Baay ngeen jeex ngeen ne lépp loo leen am Baay moo leen ko may benn taalibe mënta yëkkati dërëmam yëkkati ko def ko ci Mawlana Cheikh Ibrahim war ngeen xool seen bopp gàcce weesul lii ruus weesul lii gàcce weesuwul lii ruus weesuwul lii ndax lan mooy ruus ak lan mooy gàcce mooy man di oote ne taalibe Baay te wóor na ma sama biir poche maa ngi denc loo xam ni wóor na ma ne mat na cent francs te mun naa cee génne vingt cinq jox ko Mawlana Cheikh benn juróomi dërëm te maa ngi yore cent francs mun naa génne juróomi dërëm googu jox ko Cheikh Ibrahim Niass ma ne du ko def te yow sooy ñaan yàlla yaa ngi tawassul ci barke Cheikh Ibrahima yow yàlla yàlla nga ma may ci barke Baye ci lim liggéey ci lislaam ak lim la defal yow taalibe bi ngay ñaan yàlla jox la loolu yow mënoo jënd benn saaku ciment boo xam ni même pas du la dikkee lu de trois mille te loolu ngëneel la ci yow taalibe bàyyi ku ko xam-xam ne jàmbaar defar na ay milliardaires yoo xam ne tey soo demoon ci seen kër yi fekk ñu mat ay un kilomètre ñaanal na ay nit ñoo xam ne garantie na leen na leen doole leen ñàkk mukk ci kaw àdduna am na ay njaboot ñoo xam ne ñu ngi fi man du ma bàyyi kenn man bu ragaluma dara ndax damay wax ne tàllaluma sama loxo benn taalibe wala benn muqaddam na ko may ma te du am ba ilaa yow man maa wax man Baye Mbaye su fekkee ne dem laaj muqaddam wala taalibe Baye addiya boo xam ne mu jëm ci man du am ba ilaa yow li ma gëm rek laa gëm damaa gëm ne ndaw laa damaa war a yor te damaa war a ñafeel sama bopp shababul fayda bi ma jiita sax ñemewu ñoo ñëw dajaleel ma addiya waaye nag fu ma fekk njabootu baay ñu toog dinaa laaj àddiya jël ko jox leen ma ne yéen li may wax ragaluma ko am na ñoo xam ne ñu ngi ooteel seen bopp ca Dakar ñu ne ay intellectuel waa kër Cheikh Ibrahima Niass ñu ne ñoom ñooy diriger pays bi xam nañ seen bopp te ku ci nekk mun naa jaar ci sa tur ragaluma leen faalewuma leen parce que ku gisee nii xam ne xol laay waxee naqar laay waxee ci Cheikh Ibrahim Niass ragaluma leen mun naa jaar seen waaye jaru ko te nee nañ ñoom ñoo géré ne dina bàyyi ñu ngi ci kër yu neex ci kan lañ ko amee ñun xam nañ lépp te kenn mënu cee teew sax nee nañ ñoom ñoo yore waay wala yaay ñoo yore sànc kër bàyyi te kenn mënu cee ñëw sax xool sànc bi mënuñ cee dugal benn ñaar dërëm te chaque jour ñi ngi gis nu may dugalee ci statut yi ñi ngi gis ni may duggalé ci facebook bi kenn mënu ci yëkëti dërëm ta su gàmm jotee nak ñu ñëw ray ñok seen auto yi jaabanté beeg wax ju bëri loolu day jeex mérina mérina loolu da fay jeex barké cheikh ibrahima ñass ta su ma leen ko waxé gëm leen ko bàyyi ma sam té dina taxaw di ligéyal bàyyi ba xey dé té loolu day jeex ñoñu di ñëw di jaay mana di ñëw fi dañu wan affaire tubaab te fu fu njëriñ génnee ñu jël avion yi dem fu président oote ñu dem yaa ngi dégg lu génn ca xaalis ñu jël def seen poche suñ paree ñëw su liggéey ñu taw mënuñ ci dara loolu day jeex na ñi nga xam ni ñoo fi nekk suñuy nawle ndax yeneen kër sëriñ si yëpp suñu